loo xam ne bu ñu waxee prix bi rek ay millions la euh, sonorisation bi ay millions wala ay euh, centaine de mille. Euh, loolu ça me rappelle Sidi Lamine Niass. oustaz oui Sidi Lamine moo daan wax ne policiers yi dañuy ñëw kii nu mu tudd campagne comme li xew nii rek. mu ne suñ dee campagne dañuy jox ñiy ñëw dañ leen di jox t parfois sax jox leen xaalis ak chanduge mhm. ne dañuy loué bâche mhm. dañuy loué sonorisation mhm. lépp lañ koy loué waaw léegi ne journalistes yi nag yéen ñëw leen jël ko gratuitement gratuitement te journalistes yi ñoom fañ mën a fañ mën a yegg télé bi ah, waaw mais toujours contre ce concept là boo ko waxee mu ne non propagande ak communication soo ko xamee dafa am prix oui oui exactement ah, ku mën a fay sonorisation. waaw war a fay journaliste bu la bu bu bu ñëw jël ko. <laughs> tegal la ko nga def sa communication facilement. mais mais quand tu poses l'analyse tu te dis que mais loo hmm. loolu mooy liy yoon. les journalistes n'ont qu'à continuer à faire de l'information. Euh, euh, euh, ñu koy waxee sax ñiy def communication. fay dem def communication. de la même manière je me dis koo xam ne yow mën ngaa organiser sa sa sa sa nu sa conférence. Mm-hmm. woo waa xaw ma nan bâche du ma tudd ba mu rafet. def jël ñëwal ne ko ñëwal toog suñ paree na la yàlla na la fay ah, yàlla na la yàlla fay baax na mais joxal dara waaw <laughs> loolu daal mooy réalité bi nga xam ne war nañu ko xoolaat bu baax a baax ci ci ci ci tante amoon am na émission boobu ñu créé de ko tante yi loolu sax moo ko taxoon jóg ci mhm. principe bi mooy nañu waxtaanee li ci suufu tante yi parce que yi ñu ci war a waxtaanee dafa dafa bari li ñu war a waxtaanee ci daayira dafa bari association yeeg euh, jàkk yeeg yu mel noonu mhm. euh, léegi nag koor nag moo a nekk boo xam ne ci la ñuy def euh, désactiver lépp seet exactement nan la ñuy def ba conférence yooyu ñu thématiser ko ko sax léeg nga gis benn koñ nga gis euh, am oustaz bu ñëw waxtaanee l'islam ak solidarité. Mm-hmm. nga demaat ci beneen koñ bi ñu defaat même sujet bi l'islam ak solidarité. Mm-hmm. ak bari lu ñu koy wax. Mhm. lu ñu koy def te fekk mënoon nañu coordonné ba nga xam ne. d'accord dañu naan ne complémentarité la yooyu yëpp euh, waxtaan euh, mbir mi dafa euh, aajo waxtaan bu yaatu yaatu. d'accord d'accord bi tey beneen mbir boo xamante ne aussi dañ ko ci seetlu mi programme télévision maa ngi koy wax léegi bu dul série di ay émissions yoo xamante ne pratiquement ñoom ñëpp bokk format dañuy commencer 22h jëm fajar ci parfois sax ay jours ouvrable dafa mel ni Sénégal weeru koor dañuy nekk en suspens ba koor gi jàll. waaw xam nga waay koor gi jàpp <laughs> kon jàpp na bi la de. ah <laughs> <laughs> yow daal baax nga fi yow moom fu may ñëwatee boo fi dekkul du ma ñëw. Ah. may noggatu. waaw alors xam nga xam nga dañuy faral di wax ne euh, xew-xew bu Sénégal xew-xew bu am. Mhm. il faut ñu am nu noo xam ne noonu la ñuy dundee boobu xew-xew. maanaam dañu dem ba actuellement dafa nekk dafa nekk coutume la actuellement bu weer koor jotee maanaam à partir de 22 heures télévision yi teg ay programme yoo xam ne nii nit ñi dinañ ko mën a seetaan muy ñaari yëf nag moo koy indi. benn bi moom mooy traite la. trade la pour ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay seen i produits ci weeri koor dañuy bëgg seen produit gën a jar. parce que dañ koy jëfandikoo traite la. télévision yi aussi bu cee sukkandiku ngir mun a ñoom it euh, remplir seen i nafa. donc loolu benn condition la beneen bi moom mooy ñi nga xam ne dañuy woor mhm. dañu jàpp ne seen programme bu ñu ko changé noonu guddi gi parce que guddi gi ñu bari bu ñu ndogoo ba pare dañuy continuer guddi gi maanaam dañuy dañuy veillé guddi gi parce que dañu naan li ñuy lekk moo bëri li ñuy naan moo bëri donc dañuy dañuy profité guddi gi mun ci lekk loolu nag dañ dañu leen di defal programme yoo xam ne dina leen mun a wéttali loolu aussi télévision bi daf ciy gagné daf ciy gagné ni mu ciy gagné moom mooy dina dina am dina am benn benn benn benn benn audimat boo xam ne day gën a day gën a baax ci télévision bi mhm. beneen bi moom mooy euh, beneen phénomène dafa ñëw fekk si moom mooy phénomène réseau sociaux mooy télévision bi moment boobu dina mun a yokk ay visibilité am ci euh, YouTube par exemple mhm. bu fekkee yaa nga fa di nga yokk say visibilité ba nga xam ne sa koppar dina gën a bëri di nga fa gagné lu bëri mhm. donc moo moo ëmb li ma la wax ne campagne la campagne la boo xam ne fi ne télévision bu nekk danga nga ciy bëgg a boo ci génnee nga am as boo xam ne di nga ci mun a suqalikuwaat le temps ngay amaat leneen maintenant dafa am nag ay inconvénients yu ci am. oui inconvénients yu ci am mooy. par exemple mën nga teg sa programme. Mhm. yow programme bi nga koy teg xaalis nga ci jublu. Mhm. am am nga ci jublu ak ñu seetaan la mais est-ce que li ngay servir askan wi doon na loo xam ne lu am njëriñ la. Mhm. doon na loo xam ne lu baax la ci ñoom parce que télévision yu ci bëri mën nga servir askan wi loo xam ne lu yàq la. comme mun nga servir askan wi loo xam ne mën na indi coow ci réewu Sénégal. parce que dund ngeen ko dundati ko ay programme yoo xam ne dañ ko fiy teg ñuy waxante ci seen biir ci diggante ay wasilaak yooyu yooyu mën na indi ci réew mi dara te yàlla nañ ci yàlla musal <laughs> donc ni mu amee avantage <laughs> noonu la amee inconvénient mais dem nañ nag ba fi mu toll nii nit ñi dañ ko solo seetlu trait rapidement s'il te plaît seetlu bi mooy euh, euh, année yi ñu génn mhm. koor yi ñu fi woor yëpp yàlla na ci yàlla musal ren jii mm-hmm. c'est-à-dire on a passé pratiquement un mois di wax waxu caaxaan mm-hmm. ay ay yu génn fii ay di wax na lii di wax na lii mm-hmm. yooyu laa contre mais ñun fii pour parler de Walfadjri ñun je crois que yàlla daf ñu dimbali ci benn affaire ñun dañu am diine am jamono Famatar gisoo ma de dañu am diine am jamono <laughs> c'est-à-dire que cest mais doon na gën a rafet mais <laughs> dañoo am diine wal ma ci baaraam bi ne <laughs> wala xam nga xam nga xam nga bitey. oustaz say diine. bitey il ah. est lu lu lu lu. lu garaaw sax la wax. non non lu garaaw lay wax. bu ñu may rek ma expliquer. Ah. xam bitey il est dans la création il est dans la mhm. production. et souvent il fait loo xam ne dina neex si xol ki koy seetaan. Mhm. soo amee à côté oustaz Assane. nga xam ne mhm. il est point pointu sur les questions religieuses. ce mix là daf lay permettre. nga mën a def quelque chose d'utile et agréable. foofu foofu laay waxee. gis nga boo xoolee ay années ci ginnaaw. seetlu bi moo daan dañu daan def euh, koor gi man pour man si pas une mauvaise chose ah mais dafa demoon jur ay effet pervers mm-hmm. mooy koor gi dañu daan def guddi gi tey ñu ne tey di sëñ Touba la ñuy waxtaan mm-hmm. bu ko defee sama mbokk murid yi ne ci télé bi di daanu ñii di woote naan maa maye nangam maa yónnee nangam may naa la oto may naa la nangam sa business ba lëggee ñu jël Seydi Hadji Malick Sy ñee jóg ba lëggee ñu jël Baye Malick euh, Baye Niass ñee jóg ñu comparer mujj gi mu jur benn concurrence mhm. entre les familles religieuses du Sénégal man loolu j'ai toujours dit il faut arrêter ça mhm. te Oustaz Assane mii man na maa doy seere gis nga euh, à chaque fois que ñun ñu doon évoquer question ak mhm. il l'a toujours refusé il n'a jamais voulu que ñuy def ces trucs là moo tax quand le salon d'honneur a commencé sur Walf nga gis ce ce mix là ma doon wax sànq parfois on parle religion mais on parle d'actualité du pays tey jii nii moment bi ñu nekk moment wu campagne bi mhm. wax naa ko oustaz keroog moment mhm. la boo xam ne tu vas forcément pendant les nuits de ramadan mhm. faire de l' parce que gars yi ñi ngi fi di campagne di proposer ay thèmes di ko waxtaane mais yooyu moment bi da nga ko am pour waxtaane ko yooyu pour man c' pas c' important ëpp na di xal di di di beneen bi mooy man j'ai beaucoup lu sur la télévision la presse et tout. Mhm. Sénégal ñun euh, man dama mës a contre par exemple des émissions qui deux heures trois heures quatre heures. Mhm. fii rek ñoo ko am. Ah, ah ci li ma xam boobu. xëy na am na jënd réew. mais ci réew yu télévision yu mag yëpp émission cinquante minutes cinquante deux minutes parfois des éditions spéciales ñoom ñooy ñoom ñooy gudd. Mhm. mais boo seetloo lii bi wax te muy dëgg nag te kenn mënu ko dindi. mooy man a mille personnes qui vous mmh. euh, vingt trois heures. Mmh. mais da ngay dem ba trois heures quatre heures du matin ces dix mille personnes sont avec toi. Mmh. demuñu ñu ngi lay seetaan ça veut dire que ça les intéresse mm-hmm. su fekkoon dafa nekk loo xam ne une heure de soxla woon wala ça a commencé à les à les lasser comme on mm-hmm. seetaanee au bout de deux heures ñu wàññeeku dem mm-hmm. mais yow da gis penco parfois on fait quatre heures d' bu ñuy dem day day sax yéeg exactement mu taxaw day yéeg du wàcc donc donc pour man il faut relativiser tout ça se dire que ni peut être c' est propre au Sénégal mais en pour man pour man c' non pas une mauvaise chose c'est-à-dire que mais man damay jàpp que ne comme bu ñu nekkee weeru koor. Mhm. Euh, naturellement de bu ñu nee on est dans un pays à quatre-vingt-quinze pour cent musulmans. Mhm. naturellement programme télé yi war nañu changer en fonction période bi. parce que mënuñu kon ne tamit euh, di wane ay clip yoo xam ne wala ay ay ay débat yoo xam ne vraiment euh, ku koy dégg rek ça ça peut même se détourner de l'essentiel. voilà parce que aussi je pense que bu dee dañ nekk si weeru koor. nit ki buy seetaan benn programme télévision. wala muy déglu programme rajo. Mhm. mën na am lu mu si siy jàngee. Mhm. yaa ngi de mhm. parce que boo wooree am na loo xam ne da nga koy oustaz mu doon wax ne bu euh, boo nit ki buy woor bëtam dafa war a woor noppam di woor de la même façon aussi boo wooree am na fi nga toll. am na yeneen li nga bëgg dégg déglu dul déglu ay musique wala déglu ay seetaan ay yenn film yi. maintenant man li ma si métti nag si programme yu bëri yooyu mooy lan. oui c'est que parfois euh, euh, débat yi. émission yi. dañuy dévier mooy lan maanaam on on on évoque des sujets salaces comme genre est-ce que nit am na droit woor di fóonante nit war na am droit woor di defante bon vraiment ça ça met mal à l'aise c'est-à-dire il faut éviter ce genre de débat là débat bi naal bu buñ ko orienté c'est vrai que Moussa. li ngay wax nii chaque année ñu dégg benn sujet boo xam ne buzz lay def chaque année les mêmes sujets ñu siy werante chaque année mm-hmm. mu mel ni. yow wax wax nga ko daaw. ñu nee la weeru koor boo wooree est-ce que am nga droit fóon sa jabar est am nga droit def lii est-ce que war nga am droit joxante loxo. que jeex na wax nga ko daaw pourquoi nga si ñëwaat ren. parce que daaw amoon na bës nga bëgg a. daaw daaw daaw wax nga ko daaw wax nga ko daaw nit ñi dégg lañ la. pourquoi ren nga neen nga waxaat ko. wala sax Georges Nesta benn oustaz wala xam lu ñu ko mën a tuddee dem ci benn euh, télévision wax fa toj-toj yeneen télévision di ko woo pour mu mun a waxaat. lay wax maanaam ñu woo pour ne kii mooy oustaz bi mooy def bës bi. Euh, c'est ça moom de boo ko wooyee lépp lu si beccoo lépp lu si lii dina ko laal. <laughs> loolu daal. waa ji nekk star nag. di wax rajo yi di wax les mêmes bêtises. voilà et bon voilà woo naa ne quoi moo tax ma ne la émission yi baax na mais continue émission bi dafa war a nit boo ko dégloo bu ko déggee am njëriñ bu mu siy jële mm-hmm. mais ka pas quand pour divertir les genres divertir pervertir les gens même mm-hmm. maanaam yóbbu leen si yoon bu bon parce que am na yoo xam ne boo ko déggee jour boobu ba nga ne da tax ngay encouragé ne ah dégg naa oustaz diw wala wax wax na nangam kon kay kon kay mën naa ko def <laughs> donc là je crois qu'il faut éviter ça. Mhm. Mhm. salon d'honneur tey lay tàmbali bi tey. Mhm. kan mooy sa gan. Euh, tey Ahmed Khalifa Niass comme d'habitude ni ñu koy defee euh, suñu papa la dañu faral chaque année. mooy moo koy ubbi. donc euh, comme loolu nag dañ koo tàmm mu mu mu jig ñu. alors ñu continuer ko moom la ñuy dalal te xam nga euh, Ahmed Khalifa. Euh, dafa nekk client boo xamante ni da ngay mën a waxtaan ak moom ci lu bari. Mhm. parce que mën nga dugg ak moom ci politique bi mën nga dugg ak moom ci diine mën nga dugg ak moom ci société c'est-à-dire nga mën a dugg ak moom parce que euh, yàlla daf ko may mu am mu nekk koo xam ne dafa am dafa am ouverture dafa am ouverture maintenant sujet <laughs> yi Georges di wax ñun duñ ko fa yóbbu waaw ñun duñ ko fa yóbbu mais xëy na moom mu bu fa duggee itam da koy neexal dañuy dugg. <laughs> waaw mais war a si dugg chaque chaque année rek mu dugg si chaque année mu dugg si mel ah, mais de toutes les façons moom xam nañ ne client la bu ñu dul yàkkalee. waaw ah gisoo gisoo gisoo ren gisoo ren sax dafa laa dàq ci. ci jour bi mais dama dama parce que bëgguma nga fekkee ko sa papa la. dama nga oh, ko dàq nag. waaw bu boobaa ñu ñu ñu seet def. <laughs> alors donc loolu la ren moom la moom la ñu am tey muy mhm. Ahmed Khalifa Niass. Mhm. Euh, ñuy ñaan rek commencé ko ci bisimilah rahmaani rahiim. Ah, jeexal euh, a mhm. am na solo macha allah. déjà dès la première semaine. nit ñi dinañ seetaan lu am solo waaye Pape campagne Amadou Bi bi war nañ cee wax de. Amadou Ba ah man kay damay liir nii ñu ne suspendre na campagne ba. pour un tête a tête avec. le euh, président le président de la république. Mm-hmm. Mm-hmm. i rajo ñoo ko wax. ah, ah euh, ñu ko net politique 30 wala da am leneen looy. gis Issa Issa Issa journal campagne lay def te amul lu mu journal. waaw euh, man moom damaa war a.